Mhm. il faut que may wax nag. te ma ñëwaat ci information bi avion présidentiel lañ bëggoon a saboté. dégg ngeen dégg ngeen. yaa ngi yàq TFM Bouba Ndour. yàq yaa ngi yàq TFM Bouba Ndour. yàq. dégg nga. il faut que may wax nag. te ma ñëwaat ci information bi avion présidentiel lañ bëggoon a saboté. dégg ngeen dégg ngeen dégg ngeen. président Macky Sall xam na lépp. i eh, dégg ngeen. traître yi xam na leen. dégg ngeen avion ko jege nekk ay traître xam na leen. mu wax matuka. ku ngeen di embauché te xool ko. Eh, eh, li mu wax garaaw na. te bu soobee yàlla bu ñu paree si Sonko dinañ lijjanti les traîtres. i bu ñu paree bu la Macky Sall baalee sax ci réseaux sociaux dinañ leen lijjanti yéen. dégg ngeen ma ñëw ci buuma duur. léegi ma ñëw ci buuma duur. te balaa ma ñëw ci buuma duur may leen ma rek. dégg

buuba ngay ñàkk booy yow nekk TFM yaa ngi commencé di yàq TFM yow buuba nduur yow balaa may dee nga ñëw naan waaw euh, Binta Diallo ma ñëw ci Binta Diallo dégg naa Diop Fall aussi daf ko mettre au frigo ba mu jëlee Khalifa euh, Khalifa Niass léegi buuba euh, Binta Diallo def benn vidéo def benn interview mu wër àdduna def buzz mhm. nga ne bu mu defati info soir parce que dafay exposé mhm. groupe Futurs Médias c'est faux

yow yaa ngi toog jàkkaarloo boobu noonu di wax sa xalaat. di wax sa avis. Mhm. nee nga yow surtout bu ko la neexee mu nekk Aliou euh, Macky Sall président Macky Sall yow nga am sa sa sa la ko. ñu nangul la ko am nga ci droit assumé ko. Mhm. da far ak ak waa Pastef ak ak Ousmane Sonko. su am nga ci droit. yow nga toog ci plateau di wax dara saf. ak dana gëm. Mhm. moom bi bi nga jàlloo. bu defee liggéeyam ba pare. génn. viem la.

yàq jàkkaaroo yaa ngi yàq TFM. lu tax parce que dafa wax dëgg Sénégal YouTube laa ko jàpp wala Facebook. mais gars yi ñoo ma ko. yaa ngi yàq TFM bu bëgg. yàqul TFM de. te defe naa ne man li mu xam ci suñu moom mooy man en tout cas liggéey naa RFM. li ndaw li ma liggéey RFM di nga toog at wala ay ñeer dugg sax yu suñu ci ci lëkkaloo yi. da ngay liggéey ñun li ñu xamee woon Futurs Médias. mooy ah ñoom de dañuy dañuy fay bu baax. ñu ngi leen di jox waaw dañoo war a tëj Sonko concert casserole moo tax accident am 23 mai waaw. waaye yow bu ñu fëkk nga agent yi. amal nga leen. ngay wane ne yow sa sa sa frère moom moom moom bërëb bi di def loola neex di salfale. nga ni san san yow li ngay def naan di mu góor naan dama bëgg protéger. c'est faux. Hmm. xamante ne am na yoo xam ne dama ko ci laaj te xoolal. Hmm. surtout moo tax ma yem fii.

li ko metti mooy euh, Bouba Ndour dafa ne il faut que ñu euh, dindi Binta Diallo ci info xaw ma lan euh, info soir xaw ma bi nga xam ne soir d'info bi nga xam ne mooy journal moom moo ko doon def par guddi ndax Binta Diallo dafa génn mu attaqué Sonko di wax ne Sonko dañ ko war a tëj ah dafa naa wax na loolu en tout cas waxoon ne daal ne ne moom concert de yi moom moo tax. accident yi am affaire yooyu waaw loolu la waxoon mu ne Sonko ci affaire Adji Sarr bi waxul ne dañ ko war a tëj mais en tout cas nee na affaire Adji Sarr bi Sonko dañ ko dañ kaa condamné kon warul bokk ci élection yi Sonko du bokk yooyu daal la doon wax nee na moom am na confiance ci justice dëkk bi léegi nag ñoom bu wëndu dañoo bañ ku taal TFM dañoo bañ ku ku songu RFM mu ne day ñoom Binta Diallo dafa exposé TFM euh, parce que li muy def bu ko defee dafa mel ni ñoom Youssou Ndour ñoo ko yónni loolu tax ñu mettre ko au frigo léegi nag euh, Maty trois pommes génn di dal Bouba Ndour. il faut que may wax may wax. kon mu ñëwaat ci yaa ngi yàq TFM Bouba Ndour. yàq yaa ngi